ndeysaan Serigne Ndiaye 2 ñëpp na mu en arrière ah mu seen siñoor jël na ko song bi dafa a ah sa coriace daan na ko. di bëre suuf di ngay bëre bëre suuf di ngay bëre bëre suuf laa ilaaha illallaah diggante Forza ak Franc Franc 2023 ñu ngi fii sa arène nationale bésu Gaston Mbengue premier combat de la soirée diggante Rasseur ak Bulldozer arbitre bi mi ngi laaj ay jugeem Rasseur moo ñu wan ginnaaw ndeysaan arbitre bi sifflé na combat bi diggante Rasseur ak Bulldozer ndeysaan Doudou Sané mooy tuus noonu xoole ay supporteram rek ndeysaan jàppante nañ ñoom ñaar diggante Bulldozer ak Rass Bulldozer ak Rass ñoom ñaar jàppante nañ Bulldozer ak Rass ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan diggante Bulldozer ak Rass diggante Bulldozer ak ndeysaan diggante Bulldozer ak Rassa ñoom ñaar jàppante nañ Bulldozer fu mu jàpp moo baax te ndengeñ bi tamit baax na ndeysaan Rassa mi ngay dóor pour mu siggi Rassa mi ngi dóor pour mu siggi mais Bulldozer jàpp na Rassa à gauche Bulldozer à droite ñoom ñaar jàppante nañ que le meilleur diggante Bulldozer ak Rass ñoom ñaar jàppante nañ Bulldozer ak Rass ndeysaan Rass mi ngay dóor pour Bulldozer sigi parce que Bulldozer fi mu jàpp moo baax ndeysaan te nengeen bi daf ko sonal diggante Bulldozer ak Rasta day sànn Rasta mi ngi dóor Rasta mi ngi dóor pour mu siggi loolu yëpp ay buntu la ñaar jàppante nañ tey ñaari xale yi bëre rek nañuy def arbitre mi ngi wax ak ñoom Bulldozer Rasta day sànn ñoom ñaar jàppante nañ ñaar kenn du maye dara désert rasa ah arbitre bi àtt na combat bi arbitre bi na combat bi diggante Buldozer ak rasa ah, diggante Buldozer ak rasa nee na na Buldozer taxaw te Buldozer tam mayu ko loolu day wut bunt déplacement bi tamit moo koy arrangé ah jël na ko mais song bi dafa sori song bi dafa sori diggante Bulldozer ak Rass diggante Bulldozer ak Rass diggante Bulldozer ak Rass ndeysaan Bulldozer ak Rass arbitre bi attewaat na combat bi jox na Bulldozer benn avertissement nee ka nee na ka taxawal bëre waaw jël na ko mais song bi dafa soriwaat ndeysaan Bulldozer ngay dóor ñaar jàppante jox na Bulldozer benn avertissement li moo lay wan ne entraînement rek moo wër ndeysaan entraîneur a bi nga wax nekk fu nga jàpp baaxul dóoral pour mu siggi diggante Bulldozer ak a laa la illa Bulldozer jël na ko Bulldozer jël na ko Bulldozer jël na ko attention jël la amugul de jël la amugul jël la amagul ah arbitre bi at na combat bi ñu xaar verdict bi ndeysaan Bulldozer daan na ras jël ba amul benn werante ndeysaan daan na ko jël ba amul benn werante ndeysaan atati amoli be nono mi zo mo jowe simili ak juróom-ñaar fii ci arène nationale ndeysaan ñu ngi léewtoo ñoom ñaar Baye Diaw féete leen ndeyjoor Modou Bodi féete leen càmmoñ jiital tànku càmmoñ Baye Diaw jiital tànku càmmoñ moom itam ñu ngi léewtoo ndeysaan ñaari xale yaa ngi léewtoo troisième combat de la soirée ci arène nationale bu nekk Gaston Production moom la ñu leen di toppal métti na léegi waaye daaw jël na ko waaye Diaw jël na ko Modou Gondi dóor na ko bàyyi kon danañu Baye Diaw. ngemboo ngemb bu weex bi jël na ko laay laxay na la daan na ko Mbaye Diaw doomu Souleymane Diaw bi laay laxay na la ay fu mu jëm ak xale yi ay Mbaye Diaw foo jëm xale yi daan na ko jël bu rëy ay Mbaye Diaw doomu Souleymane Diaw ji ndaanaan la doomu Souleymane Diaw bi ndaanaan la xam nga Mbaye Diaw gars yi bàyyi ñu ko xel ko jël bu rëy rëy bi mooy dixième combat am dixième victoire am nañu ko bàyyi xel nañu ko bàyyi xel de ndeysaan mbër la ndeysaan benn baraak jàppante nañu ñoom ñaar jóobu benn baraak féetale ndeyjoor ngemboo ngembu Lagos bi bukaan ngemboo ngembu weex bi ettoon na ko ndeysaan songone ko tuur ko mu bañ ñu ngi jàppante ñoom ñaar bugaan ak joo bugaan ak joo ñu ngi jàppante ñoom ñaar joo moo leen wan ginnaaw ngemboo ngembu Lagos bi Bougane moo ngeen jàkkaar lool mu ngemb bu weex bii quatrième combat de la soirée fii ci arène nationale bi juróomi woo benn waxtu ci ngoon jotee ba teg fanweeri simili ak juróom fii ci arène nationale tournée Gaston Production Bakane Mbengue nekk ci bopp bi isaan ñaari xale yi ñu ngi manipulé wante Bougane ak joo bu benn pala sax na ko léegi wéyee ko mu bañ comme joo ndeysaan ñu ngi jokkaasante ci suuf Bougane ak Diop ñu ngi jàppante ñoom ñaar Bougane mu ngi jéem a jokkaas Diop moom itam mu ngi jokkaas ndeysaan waaw waaw arbitre baate na dafa def lu règlement bi di bañ waaw dafa def lu règlement bi demañ ngay am avertissement de waaw waaw jox nañu joo benn avertissement arbitre bi soufflé na ndeysaan mbokk yi ñu ngi fii ci arène nationale tey di dibéer ñaar fukki fan ak benn ndeysaan juróomeelu weer ci weeru tubaab ñu naan ko mois de mai atum ñaar junne ñaar fukk ak ñett door na ko laa ilaaha illallaah bugaan sa garde bi wàcce na de Ndeysaan Bougane ak euh, Diop benn baraag Diop benn baraag à droite Bougane léegi position bi saase na Bougane moon leen wan ginnaaw gembo gem bu weex bi yéeg na ko plaqué Diop bañ na ñu ngi jàppante dafa mel ni luy waaj mboote mboot lay waajal moom Diop benn baraag waaye bàyyante waat nañu lay seen combat bi metti na yàgg na Ben Barak ak euh, Bougane Gueye numéro 2. di jàppante ñoom ñaar ba léegi ci arène nationale Bougane Gueye numéro 2 ak Diop Ben Barak. ñuy jàppante ñoom ñaar daw na paquete ko silip mbaa di nga ci génn joo mbaa di nga ci génn bugaan loolu bu joo génne dootoo daan bugaan daan na ko laa ilaha illallah ay bugaan géy bugaan géy arbitre yaa ngi gise ci seen biir arbitre yaa ngi gise ci seen biir waaw gise ci seen biir waaw waaw ci seen biir lu xew

ah doy na doy na waar doy na waar dafa mel ni bëriwaat la ñuy woote waaye daal lii doy na waar lii daal doy na waar wax dëgg yàlla arbitre yi ñu ngi famp ki nga xamante ne mooy joo waaye dafa mel ni bëriwaat la ñuy woote ah arbitre yi de bëriwaat la ñuy woote man de lii xamatuma ci lu bari nag arbitre bi soufflé waat na tey saan sànq bugaan dafa daw ne ko sirip paqueté ko taw moom tey saan yéeg ko daan ko jëlaat na tànk bi palaket na ko mu bañ tey saan joo takk na ko bugaan bañ na joo koy takk bugaan a ngi bañ fu muy mujj weñ na ko bañ na ñaari xale yaa ngi bëre de ay bugaan ak joo combat bi metti na waaye sax site am na boo xamante ne daal mën na indi coow ci làmb ji. ndeysaan ñu ngi ñëw ñu ngi jàppante ba léegi bugaan def na demi falaison léegi jógu ndeysaan bugaan ak joo ñoom ñaar ba léegi ñu ngi jàppante ginnaaw bu ñu bëree bu njëkk am site bu am arbitre bi validé bu ko. waat leen ci digg géew bi pour ñu bëriwaat coo ngi jàppante ak Bougane Bougane Gueye à coo bu benn baraag à gauche ñu ngi jàppante ñoom ñaar ba léegi mu ngi koy cokkaas moom waaye géew bu benn baraag mu ngi jéem a cokkaas moom itam ci suuf yëg na ko plaqué mu bañ ndeysaan bugaan bàyyi waat na fi mu jàppoon taw na paquete waat ko waaye pratiquement dafa mel ni lu bëgg a feeñ waaw waaw tax na ko waaye dara amagul loxoom a ngi ci waaw bugaan am na lu mu amaat paquete waat na ko paquete waat na ko waaw taan na ko waaw waaw ko bii de kenn du ko lamlamee moom kenn du ko lamlamee bugaan daan na jóobu benn bras jël bu amul benn werante ndeysaan daf ko jël ne sirip tànk bi jóobu benn baraak sexal ko tànk bi ndeysaan bugaan bàyyi ko taw paquete ñaari tànk yi tawal ko daan ko jël bu amul benn werante ndeysaan Melex ak Doudou Sané arbitre bi waxaat na ay gisam ba pare mi ngi waaj a soufflé ndeysaan ah arbitre bi soufflé na combat bi diggante Boy Melex ak Doudou Sané ndeysaan Boy Melex sànni na kurpañ jël na ko ah Doudou Sané daan na ko Doudou Sané daan na Boy Melex jël ba amul benn werante ndeysaan doole doxul jàmm c'est le maire c'est daan na ko jël ba amul benn warante doole doxul jàmm laa ilaaha illallaah xoolal ma supporter yi rek ndeysaan xamal na yow taxumaa jug ndeysaan mi ngi wax ndeysaan mu ngi koy joxoñ ne kii taxumaa jug nañ ma jox samay morom <laughs> nee na daf kaa xeeb waaw waaw nee na daf kaa xeeb da koo xeeb dafa tuuti du moromam maa ne du moromam nee nañ ko jox moromam daf kaa xeeb ndeysaan déggal ma loolu rek béy di moom day filmer Mohamed Ali la doomu Mohamed Ali la. ndeysaan doomu Mohamed Ali la daan. ah bilaay. mais li amul kii nañ ko jox ay moromam. waaw waaw ñii moo nekk bu doole. cinquième combat cinquième victoire. zéro défaite. nee na maa làmb maa fépp fit maa fépp doole moom Doudou Sané kii mooy Kayaafi kii mooy borom mbapat mi wala si Zambul bi ndeysaan oh Kayaafi ngi noonu xool ko jël ko jël ko jël ko jëlal ko sum ko ay waay Kayaafi tala ko micro tala ko Thank ñu boole. yow loolu la ah man Modou Anta nañu bëre. kan nga su bëggee. waaw su bëggee. bi taxaw. su ñemee mani waaw waaw waaw su ñemee suba combat bi taxaw. mani. makan na ngay Anta. moo doon mu bàyyam. Modou Anta Doudou ndeysaan day waaj dimanche. dimanche 21 mai 2023 ñu ngi fii si arène nationale bésu kan la bésu Gaston Meng ndeysaan taxawal fi ñaari combat yu mag. premier combat bi moom mooy Eumeu Sène junior ak Serigne Ndiaye numéro 2 at bi bi nag mi ngi wax ak ñoom ndeysaan bëre bi dina yàgg wala du yàgg si kanam dina leer. ndeysaan Serigne Ndiaye 2 moo ñu wan ginnaaw ñoom ñaar ñi ngi kàbbar arbitre mi ngi laaj ay gisem ndeysaan nee na ndax pare ngeen ñu waaw ah arbitre bi sifflé na grand combat bi diggante Serigne Ndiaye 2 ak Eumeu Sène Junior ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ñu ngay demee wet bii combat ñaari mbëri mbapat nañ ñoom ñaar ñi diggante Serigne Ndiaye 2 Eumeu Sène Junior ndam li Fass la jëm wala Géejawaay ci kanam dina leer Eumeu Sène sànni na sànq droite ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Serigne Ndiaye 2 Eumeu Sène Junior ndeysaan cokkaas na Eumeu Sène Junior cokkaas na loolu yëpp buntu la laa ilaaha illallaah Serigne Ndiaye 2 Eumeu Sène ñoom ñaar jege nañ saaku yi saaku yi fekkwul kenn ñoom ñaar ñi ngi lëwtoo diggante Eumeu Sène Junior Serigne Ndiaye 2 day sàn cokkaas na cokkaas na day sàn door na ko mu daanu Serigne Ndiaye 2 door na ko mu daanu laa ilaaha illallaah Serigne ko mu daanu mais arbitre bi nee na jël la amul mu ngi leen wowaat si diggu géew bi diggante Serigne Ndiaye 2 Eumeu Sène Senior ndeysaan Eumeu Sène Senior am na benn avertissement Eumeu Sène am na benn avertissement ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Serigne Ndiaye 2 Eumeu Sène Senior Eumeu Sène Senior à gauche Serigne Ndiaye 2 à droite ndeysaan ñoom ñaar dañuy lewtoo ñaari mbëri mbapat la ñaari mbëri mbapat la moo tax du yomb si ñoom ñaar ñëpp diggante Eumeu Sène Junior jaay Ndiaye 2 ndeysaan soxna si kii dafa ndox dóor bi daf ko wàññi. dóor bi da koo wàññi lu bëree bari ndax dóor mu daanu te dara amul da lay eh dóoraat génnaat na saako yi génnaat na ko Serigne Ndiaye dë dóor na ko mu génnaat. dóoraat na ko ba mu génnaat saako yi premier dóor bi daf ko wàññi. da koo wàññi daa am lu ci moom. at bi mu ngi leen di woowaat. at bi woowaat na leen kaa leen ci géew. est-ce que du jël avertissement. day jël avertissement kay. day jël avertissement. alors at bi mu ngi leen di woowaat. ndeysaan waaw joxaat na ko avertissement mi ñaari avertissement. arbitre bi waaw arbitre bi sifflé waat na combat bi Serigne Eumeu Sène Junior am na ñaari avancement. Eumeu Sène Junior day dox. day dem Serigne di dox ci kawam. dafa am jeexee par avertissement. su ma juumul mun na faa jeexee ndax ama seen taxawul mais mën na nekk stratégie nag eh Serigne Ndiaye dooraat na ama seen bëgg a jël tànk Serigne Ndiaye. Serigne Ndiaye deux mayu ko loolu. mayu ko loolu. Serigne ama seen day day calculer bi door eh. Serigne Ndiaye deux gën gënaat na saako. na saako yi ñetti avertissement. Ah. ñetti moo moo tax ma ne la est-ce que du jeexee ay avertissement. Eumeu Sène junior li mu bëree nii mosu koo bëree. la su ko bëree est-ce que du ne dañ ko jekku ci gàllank. ah doy na waar. ah arbitre bi suflewaat na combat bi. kay comprendre sa béy bi suflewaat na combat bi diggante Eumeu Sène junior. Eumeu Sène junior Serigne Ndiaye numéro 2 Eumeu Sène junior am na trois avertissement. saako yi fekkul kenn. ndeysaan saako yi fekkwul kenn Eumeu Sène Junior Serigne Ndiaye 2 arbitre bi mi ngi naan Eumeu Sène Junior taxawal ndeysaan Serigne Ndiaye 2 ñëpp na mu en arrière ah Eumeu Sène Junior jël na ko song bi dafa sori ah coriace daan na ko Serigne Ndiaye 2 daan na Eumeu Sène Junior ndeysaan jël ba amul benn werante ndeysaan duma na ko daan na ko jël ba amul benn werante xoolal mu lii rek père Ibra Mbaye laa ilaha illallah laa ilaha oh daan na ko jël bu amul benn werante ndeysaan jël bu amul benn werante père bu ndox am seen siñoor musul bëree ni non du yoon muy xeex ak njool xeex bi pour buntu buntu la mais ku kenn du ko encaissé parce que kurfañ bi bu la dalee da ngay fàttali nga doonoon. dëgg la dafa ndox première coup moom moo tax mu wàññeeku. waaw parce que ndaama la ba pare ngay xeex moom di ko yootu ba pare bu miinee nga bàyyi sa sa garde gis nga bi mu ko dóoree martu daa wàcc dëgg la toolu nag jël la woon mais kii indiwul dara lu muy daane mbëri dañ koy dëkk mais ñime ko jombul ndax Serigne Ndiaye daa mat mbër te daa am bëre kii boo ko jéemul nax si bëre bi mënoo ko duma parce que moo la sut xoolal ma loolu rek luñ ko parce que amul garde dëgg la xoolal ma loolu rek ndeysaan xoolal ma loolu rek nuyu naa la Diallo looy wax ci victoire bi tur bi nan la. Cheikh Mbaye Galas. Cheikh Mbaye Galas. Cheikh Mbaye Galas. non Fass ma xewle c'est la fête. c'est la fête waaw. dina wax ci li nga bëri. mais dara man amul amul igri Fass. Ah. dama conseillé dama yeb ne ma rek la teel teel ñëpp la même ñoo teel teel teel teel. te ah. ba ma tey. te yaakaar dama foor na trop nag. Ah. waaye sax samay fay bu baax a baax a baax. sama équipe face bu baax sama coach Kanté Bojan ma koy sant ba dëkk moo bokk am ba avancé bu baax a baax nag sama bopp. gannaaw moom sama bopp pare. ma koy sant ba dëkk bi nga ñaanal jàmm ak salaam. ba dëgg yàlla. victoire nag ba dëgg yàlla. maa baax. di ko noonu réew mi bëgg. Eh, man maa ngi dugg rek. waaye am loo def ci géew bi loolu dara. sama grand mooy bëre Forza di ko ñaanal jàmm parce que amoon nañu bu ndaw mais as rek man xale laa lépp sama kaw lay tegu maa ngi jégalu bu baax man bu bax a baax di ko ñaanal tam nag bu baax baax sin sa sama xol la ak man Serap Fall di sant bay Abass Ndoye bu baax région maire Guém Ñaajo Arama Mbaye man sama di gërëm sama staff ñi nii non billahi wallahi wa taalahi su teree ma tere sama laay ma koy tere nag yéen Fass ndax ay naxa tey da nga bett ñu bëri. da nga am tey. non ah, waaw fay naa la. non du poulain da naan sunu moroomu mbër. waaw di guerrier di champion. ñii du ñu ay lu ñu waxoon démb rek la ñuy wax ñaar ñii ñëpp di bëre muy muy Forza muy Serigne amul benn mbër bu ñu leen di tiital ndogalu yàlla rek moo mën a ñëw nekk surprise mais ki mu doon bëreel nii ku xam Serigne Ndiaye di nga xam ne lii du woon combat ci moom. yow foo toll. loolu ñu ngi si ginnaaw ñëpp rek ñu ngi si ginnaaw ñëpp di xaar. ak relève écurie Fass car car macha allah yàlla bu ñu ca dug ñoo ko ëpp ñoo ko ëppale écurie yëpp. parce que au moins on a plus de quatre ténors yoo xam ne tey war nañ mën a bëri ay grand combat. gars yi nag ñoo leen fi gars bëgg lu yomb. mais nag wiiri wiiri jaari ndaare. waaw incha allah Eumeu Sène junior mii grand champion la def na lu nekk ci làmb ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy félicité moom it toog na lu yàgg bëriwul parce que gars yi parfois dañuy bëgg fu mu gën a nooyee rek te làmb ji amul lu nooy parce que promoteur yi ñooy jëf joxe seen xaalis mais booy yi ñi ngi war a bëreel ñi ngi war a bëreel dëgg dëgg dëgg dëgg ñu ngi si kanam te nañ toog xaar ku ci nekk sa ku ci nekk sa bu jotee da ngay ñëw de phase ngeen plus de 4 yoo xamante bi ni ay champion lañ ci biir làmb. bu yàgg la mbooloo mooy doole Fass la woon léegi Fass Ndakaaru la te dañuy wax ni seul le travail paye liggéey bu yàgg la du liggéeyu tey booy ñun espoir yi ñu am du liggéeyu tey parce que euh, euh, euh, liggéey bu yàgg mooy def résultat mais du liggéey tey pour am résultat tey boo yi toog nañ lu yàgg boo gisee ñuy toog lu yàgg du ñu bëre. gars yi ñooy bëgg lu nooy rek di leen bàyyi fii xam nga mais a chaque fois ñi nekk ci liggéey je te donne l' exemple de Serigne Ndiaye toog na lu yàgg bëriwul koo ko yóbbul avance mun na day parce que c' danger pour gars yi pour nekk suuf je te donne l' exemple de Forza mi di bëri tey lu yag avance am ko yóbbu gars na day xaar Maodo mii bi mu Gris 2 bi mu bëri Abdou ba léegi ñu ci prolongation bi avance am di wundaalu nag wiiri wiiri wiiri yaari ndaare. ah. arbitre ñu soufflé grand combat bi dimanche 21 mai 2023 ñu ngi fii sa arène nationale ba su Gaston Mbengue mu taxawal fi ñaari combat yu mag ndeysaan premier combat bi Serigne Ndiaye 2 wane na boppam daan Eumeu Sène junior jël ba amul benn werante beneen baa ngi nii diggante Forza ak Franc ndeysaan arbitre bi maa ngi soufflé grand combat bi kan la ñu tuddee trapo bi Abdoulaye Fall ñu ngi laaj ay sixième ñu ngi laaj ay sixième ñu ngi laaj ay sixième ñu ngi laaj ndax pare na ah arbitre bi sifflé na grand combat bi il est vingt heures sept minutes day sànn combat bi dina yàgg wala du yàgg ci kanam dina leer dam li faas la jëm wala parcelle ci kanam dina leer ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Forza ak Franc ndeysaan Cheikh Service diggante Forza ak Franc Forza cokkaas na Forza cokkaas na ñu ngay xeex jël na ko Forza ñaar ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan laa ilaaha illallaah sànni na ko mu bañ ñi ngay bëre suuf ñi ngay bëre suuf ñi ngay bëre suuf laa ilaaha illallaah diggante Forza ak Franc Franc daan na Forza jël ba amul benn warante la ilaha illallah ndam li mujjee na dem parcelle waxoon naa leen ko fiix ci kanam ndam li faas la jëm wala parcelle ci kanam dina leer Franc wane na boppam daan na Forza jël ba amul benn warante ndeysaan 11 12 combats 12 victoire ndeysaan Franc daan na ko jël ba amul benn warante képp kii bëggee site bi rek ndeysaan Diba mi ngi lay bëggee maa ngi sant équipe bi yëpp technicien yéex monteur yéex ñëpp maa ngi leen di sant leen gërëm wasalaam ba beneen yoon daan na ko ndeysaan xolal ma lii rek xoolal supporteru Franc yaa ngi ni xoolal ma lii supporteru Franc yaa ngi nii daan na Forza jël ba amul benn warante xoolal ma lii rek dem li mujjee na dem dam dem li mujjee na dem parcelle waaw loo wax njaaxaami kese lañu topp ñun njaaxaami kese waaw rek rek rek rek lan soxla rek rek waaye nag yéen koo leen soxla nan jox rek rek rek rek nee na Reug Reug dañu soxla nee na dañu soxla te Reug Reug bombardier taxaw na ndeysaan Franc daan na ko jël ba amul benn werante looy wax njaaxo bi kese la ñuy topp ñu keneen lu waa yor na ko téye ki mbër plus bande égal super Franc yi dal sa kaw ay seconde la lay daan waa léegi foo jëm kan kan kan Amadou Ba waaw loo. loo wax. ah kontaan wax kontaan rek. looy wax kontaan rek kontaan. waaw kontaan noonu la waay. tey noonu la ñëwee woon. waaw noonu la waay noonu. waaw noonu la. dafa am benn waran. waaw xëy na ndam bi jikko. yaakaar ni moom nga war a ma. ma nekk. waaw am koo leen kay jox léegi. Fara. waaw ah kan lañ ko war a jox. ah rek. ci Fara am na moromam yoo xam ne moom la war a bëreel ca kaw fi dem ca wala la dege. waaw ma ne. fana waa fan la jëm fan lañ jo jox. ñi ñëpp ñoo leen mën après nañu comprendre affaire bi parcelle la Grand Médine mais ñu ngi sant ñëpp nag gis nga Franc li mu def ak Forza dama laa bëgg a xamal ne ñi ñoo leen mën ñun Modou moo ñu jiital ñun ñoo mën ñii fuuf barke Seydina Mohamed. moo mën moo bu doole barki Serigne Bamba na dama enema ji kenn na dama enema ji Forza na dama enema loo wax tey ci booy bi mais sa bet ñu bari sant yàlla dañ naan alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin yor ndam moo ñu may ndam ñu koy sénar bu baax a baax di ñaan ndam yàlla na continuer incha allah waaw foo lañ jëm foo lañ jëm ah mais la avenir am mi ci kanam li ko dese day doo commencé li ko dese dafa bëri li des dafa bëri incha allah mais kan ngeen di yaakaar ne yow mooy adversaire am actuellement non Franc amul choix Franc amul choix Franc mel ni Modou Lo la fi bàyyi Modou Lo la bàyyi ci kanamam ku dul Modou Lo rek la fi bàyyi loolu nag loolu ça veut tout dire. daw Franc moo tax mu jël Bombardier daw daw Franc parce que da ko doon laaj mu ne ko dama nga jël forsa ba pare soo pare mu mel revanche mu daan après gars yi tàmbali say wax moo tax mu jël Bombardier mais na ko jël boo ko mu nëpp ko doole na ko jël. ñun Franc Franc bi kese. Franc kese la mais mais Franc eh, góor a baaxal ah Franc guy combat bu jaadu la ngi taal loxoom guy gi. Gouy Gui na ko jox chance incha allah rabi. Sa na ko wala Sa na ko wala Sa Thiès combat bu jaadu la. mais nu daal Modou mi papam di magam di nijaayam di léppam Modou daal moo fi nekk bu dul Modou Lo képp ku takk ngemb Fra de bëre yow. waaw kon daal Gouy Gui ak Sa loolu jaadu. ma ne Mor képp ki takk ngemb Fra de bëre Aram Gueye tey ngay ni sa doomu ndey. yàlla mais defal ko bu am ndam. waaw ànd balaa neex ngeen déggalante wax dëgg yàlla man kontaan naa ci ñoom c'est parce am na benn cër boo xamante ni leen nañ ma ko yàlla na ko yàlla delloo te muy lu rafet saa yi ñuy bëree dinaa ci def lépp lu ma war mooy dinaa ci taxaw dinaa ci wax dinaa ci dox waaw. mais dama dégg ni ñu ne moom ak guy gi wala moom ak saa loolu mooy jaar yoon. maanaam Franc képp ku bëree wul moom rek. da nga bàyyi xel mais làmb mbooloo la soxla te mbooloo mu ngi ci ginnaawam kon alhamdulilah li ñuy wax mooy promoteur yi Franc ngi noonu bu ko bëgg xam nga ko mu war a bëreel Franc amul choix amul choix. waaw sa waay war a bëreel Ama Baldé ah, loolu cere ñu mooñ ba pare la tay ko mais laalooguñ <laughs> ji Fara kese Fara kese waaw Fara sama garaa la sunu sama garaa la sama garaa sama garaa Niang Ballo ñaar ay doomu nday lan barke alxuraani karim Niang dafa war a sama garaa billaay wallaay taalaay moo tax may topp dafa war a am combat mbëri bu ñu daw nan ñëw nan ñëw mbëri nan ñëw dama soxla combat dama soxla combat billaay wallaay nan ñu jël waaw Serigne Ndiaye sa du ko neexee na ñun ñii rek lan fi bàyyi ak caadu piyool billaay wallaay bàyyi bàyyi bàyyi fu